aousubillah bisimillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah alhamdu wa shukru maan lillahi ala nabii waladi abdillahi yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi yaa mukrima dayfi jaaran kaana awzara yaa maahiyan an xadimin qabla awzara naajeytu rabbiya bi shahri ramadan shahri lamani wal muna wal fayadan sadid lisaani nawir janaani safi amaani wa zid balaay asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi seetaan seen télévision Futurs Médias ñi ngi dellu siwaat di toftal ci nuyoo boobu ziar ak ndokkeel ci weer wu tedd màgg bi nga xam ci lañ nekk nekk ci fukki fan yi jëkk yi nuyoo beeg ziar beeg ndokkeel bi di ci jiital Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Muntaxa ñaan sunu boroom yàggal ko fi lool mu ànd ak wér ak mucc ak mboolem njabootu Cheikhul Khadim yi nga xam ni moo nekk seen bopp di ko ziar bu baax a baax ko jaajëfal bu baax it ci taxawaay bi ci koor gi ku nekk Touba fan yii rek wax dëgg yàlla dangay ngay weer wi dundin woo xam ne di nga yëg ni di rafet njort ci mboolem yi nga xam ne ñu ngi ko ciy def sunu borom dana ci defal lu kawe sunu njort moo ko wax kon dundal gi ci alxuraanul karim dundal ga ci xasida yi te génnul julli ci bi sallallahu alayhi wa sant sunu boroom kañ ka màggal ka jéggalu ko ñaan ko ci xéewalam yi yooyu yëpp mooy li nga xam ni noonu la ñuy dundale weer ak berne yi itam bu ñu weeru koor faaw ñu ni ndogu ndax ku woor ku nekk faratala la itam nga dog ndogu yooyu itam saa yu ñu ko tuddee rek xel yëpp dem ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridine tey jii ki nekk ci bopp bi di sëriñ Cheikh Jëmb Fall ñoom it am ci taxawaay bu ràññeeku na sëñ am di xadi ba ci àjjuma bii weesu jombul xëy na daañu am image yi. li muy indi mbooloo mu bare bare bare bare dañ ciy mën a dogg kon liggéey boobu ñuy def ci weeru koor bi ba ci biir jumaa Touba biir kër sëñ Touba gi liggéey boobu yëpp yàlla na ko sunu borom nangu ful ko te mu sax di ziyaare di ñaanal itam jëwliñam yëpp rawaate na sëriñ Sidi moom suñ tubaay Cheikh Abdoul Ahad ak rakkam ji nga xam ni bërki démb lañ nekk ci màggalu waajuram wu tedd woowu di Cheikh bu Mbacké Abou Madiana kooku nga xam ni li mu liggéeyal alxuraanul karim kenn xamul na mu toll li mu dugal ci dënnu jullit yi ci mbooloo ci alxuraan lim bi kenn xamul na mu toll tey jii boo bëggoon wàññi daara yi nga xam ni ñi ko samp ci kër Cheikh Chouaïb bu doon jóge yaakaar naa ni mën nañ fi nekk ba tàkkusaan te du tax mu jeex kon kooku ñu doon fàttaliku ci juróom fani koor gi bërki démb ñu ngi ziare bu baax ziaraat ki nekk ci bopp njaboot gi sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke sëriñ Cheikh Say ak mboolem ay rakkam ba ci sëriñ Abdou Samad taxawaay bi rafet bi seeni jigéen soxna May abo duñu fàtte itam soxna baali taxawaay bu rafet bi jataay bu am solo itam amoon foofu ca buntu këram ni mu ko baaxoo defee at mu nekk noonu la ñuy sante it seeni doom ak seeni jalbaat rawaate na sëñ abdoulahat say moom sëñ cheikh sey ak ñoom soxna maam say ak ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeelaat baax ndokkeel itam sunu xarit sunu wëllëre di sunu genn wàllu sëñ amadu jaañ fojeka moom it am ci taxawaay bu ràññeeku ba sëñ bi sant ko ca mbooloo mu ñëpp di dégg te moom it incha allah da koy fas yéene tollamti gaaw bii ñu jëm incha allah fii ci Mermoz noonu la sëñ bi itam birale cantam gu mu jëmale ci soxna Muuminatu Kebe ak borom këram sëñ Ablaay Tage ci seen taxawaay ci màggal gi te noonu it lañ koy defee ci mbooleem xew-xewu njabootu sëñ Tuubaa gi di ko def itam ci mboolem xew-xew yi nga xam ni taalibe yi ñu ngi koy amal kon ñu ngi ñaanal sunu borom yokk leen musal leen ci barke weeru koor yi baax a baax ziar ndokkeel bu baax itam. njabootu Cheikh Abdoul Khadir gépp sëriñ Cheikh moom Cheikh Abdoul Khadir waaye jagleel ziar ki nga xam ni itam mooy porte parole di Cheikh Mohamed Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir ndokkeel ko sant ko itam bu baax a baax ci taxawaay bi nga xam ni def na ko ci tullu sëriñ Muntaxa def ko ci tullu sëriñ Cheikh moom sëriñ Saaliw ci xew-xew bii nga xam ni dafa daanu ci kaw yoonu murid yëpp mën naa ne sax daanu ci kaw jullit yëpp wala kaw Sénégal gépp muy génnuk àddina euh, sëriñ Cheikh Béthio Thioune gis ngeen taxawaay bu rafet bi nga xam ni moom la ci Cheikh Mouhamed Bachir def ànd ak njabootam ba démb ca dinatu Salaam kàddu yu am solo yi nga xam ni yëkkati na ko fa yaakaar naa ni mbokk yaa ngi koy gis bu baax a baax ci réseaux sociaux yi mel na ni tey jii itam ñiy bind ak rajo yeeg yëpp dellusiwaat nañ ci bu baax a baax ñi ngi ñaan sunu borom doolu ko yokk te musal ko bu baax a baax yokk musal njaboot Cheikhul xadim bi yëpp noonu la ñuy ziyaare mbooleem kilifa diine yëpp fu ñu mën a nekk ndokkeel leen bu baax a baax ci weer wu tedd bi dem Tiwaawan ziyaare xalifa ba sëriñ Ababacar moom Cheikh Mamadul Mansour Seydi Alaaji malik ndokkeel ko ñaan sunu borom yokkate musal ko bu baax a baax mook ay rakkam yëpp rawatina sëriñ Pape Malick si nga xam ne mi ngi waajal concours bi nga xam ne ren jii ñi ngi ko tuddee waajuram di Seydi Aboubacrine incha allah wara am le 19 ci Grand Théâtre tey jii sax incha allah ñi ngi seenu gan goo xam ni ci loolu lañu ñu war a waxtaani ndax xam ngeen ni luñ doon waajal at ba tey jii ñu naan dibéer bii ñu jëm la di concours national Senico ci wàllum alxuraanul kërim ànd ak fédération bi boole daaray alxuraan yi ci réew mi yëpp loolu lu am solo la ba tax na ñu ngi ziar waa Tiwaawan gi nga xam ne ñoom lañ ko jagleen ñoom ñëpp ngi waaj eh, sëñ Maodo si da baax alaaji abdou ñu ngi koy nuyu di ko ziar sunu soppe boobu di ko ndokkeel ci weer bu tedd bi di ko ñaanal itam ak njaboot gi yëpp noonu la ñuy ziare ñaanal ki nga xam ni mooy Thierno Bachir taal nekk ci bopp njabootu Cheikh Omar jàmbaarul islam boobu ñaan sunu borom yokk te musal ko bu baax a baax noonu lañ koy jaarale ci taawam di bàyyi faalu Cheikh Omar Thierno Cheikh moom Cheikh Ahmad muntaha daha cheikh Umar radiallahu anhum noonu la ñuy ziare itam njaboot gi nekk fii Thierno Madani ak ay rakkam Thierno Seydou Nooru Seyda Fadima ak mboolem njaboot gi yëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen ndokkeel ci weeru tedd wi dem ba Ndiassane ziar cheikh Mouhamadul Bekkaay moom cheikh Bekkaay ñaan sunu borom yokkate musal ko ak. ahlu xaadir yaa gi yëpp ziar bi ñu ngi koy jaarale ci sunu sëriñ sunu soppe alaaji ibrahima kunta maréchalu cheikh abdul xaadir jeylaani moom mi nga xam ni mooy xalifa sëriñ moustapha kunta borom tuuba njaasaan ñu ngi ziar jaboot gi yëpp di ziar itam ahlu xaadir yaa gi yëpp waa kër cheikh na cheikh saad bu chérif aya mi xalifa bi ñu koy ziar li ko moom mboolem ay rakkam njaboot gi yëpp noonu lañ koy defee itam fale sunu kër maam Cheikh Dee Calaw Seck xalifa ba naa Cheikh naa Mouhamadou ak euh, sëriñ Maxtaar mi nga xam ne mooy porte parole di ñoom ñëpp ziar leen ndokkeel leen bu baax a baax ak mboolem waa Nguraan gépp ñëw fii nag ziar bu baax ki nga xam ne mooy Chérif Abdoulahi Thiaw Laay moom Seydina Issa moom naa Limaamu ñaan sunu borom yokkatu musal ko ñoo ñu ngi koy ndokkeel bu baax ci weer wu tedd wi nga xam ni ñu ngi ci di ñaan sunu borom yokkatu musal ko bu baax a baax moo koy rakkam Cheikh Mamadou Lamine Cheikh Mamadou Mokhtar imam ba ci seen i doom Seydina ak ñoom sëñ Ibou Seyni ak ñëpp ñu ngi leen di ziar di leen bu baax baax noonu lañ koy defee itam ca Cenaba njabootu maam Ahmadou Ndaak sëñ Cheikh Ahmed Tidiane ñu ngi ñaan sunu borom yokkate musal ko bu baax a baax ak mbooleem ay njabootam dem Kaolack ziare njabootu maam Abdoulahi ji yëpp ca Medina dina Baye nga xam ni léegi rek la njaboot gi doon waxtaan waxtaan wu am solo ci liggéeyam ak yaatuwaayu liggéeyam yéen a ngi ko doon seetaan léegi seen télévision euh, Futur Media euh, ñu ngi ziar bu baax sëñ Cheikh Ahmed Tidiane ndokkeel ko bu baax moom mboolem ay rakkam ziar yitam jalbaatam di imam sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Cissé ñaan sunu borom yokk leen te musal leen noonu lañ koy ñaanal itam mbokk ya ca. lew na ña seen sëñ Cheikh Ahmed Tidiane ma fa nekk ak euh, sëñ Arabi Niass may imam ba ak mbooleem seen njaboot njabootu maam Abdoulaye gépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ko jaarale nag ci sëriñ Abdoulaye Muntaxa mi nga xam ni mooy sunu buntu foofu ak mbooleem ñi nga xam ni ñoom la seqal liggéey bi di ci yëngu saa su nekk ngir liggéeyu maam Abdoulaye waaye liggéeyu Cheikh islaam itam di gën a kawe di gën a yaatu. noonu la ñuy ziare waa kër maam Ahmadou Dem ca Sokone xalifa bi sëñ Omar ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal Cheikh Modou Bachir mi porte parole ba ak mbooleem njabootu Sokone googu yëpp dokkeel leen bu baax ci weer wu tedd yi nga xam ne ci lañ nekk. noonu lañ koy defee itam ci waa Dakar bi waa Madina Gounass sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Ba ak mboolem ñi mu njaboote ñu ngi leen di ziare bu baax a baax di ñaan suñu borom yokk leen te musal leen bu baax. noonu lañ koy defee itam ci waa kër maam Ahmadou Baro Njëgën ca kees ziar leen bu baax sañ daam ñu ngi teg ziar bi sa loxo nga jottali ko sëñ Muniiru ak mboolem njaboot gi kees bu saa suñ fa duggee xel yi dem ci sañ Saliou Touré ak taxawaay bu rafet bi nga xam ni ñu ngi koy amal foofu rawaate na ci biir weeru koor bi njàngum alxuraan bi njàngum fulkul masxoon gi ngeen koy defee ca njaareem tey jii di ko def ci bërëb yu baree bare ci àddina bi muy téere boo xam ni sëriñ bi li ko ci sunu boroom defal moo tax mu tudde ko fulkul masxuun nga xam ni weeru koor ba weeru koor la ko daan génne buñ ko tegee ci ëtt bi ak malaan yu am solo futti si gën a chére moom la ko daan wërale di jël gëtt yi gën a neex ay sikki ay óot yooyu la ci daan wis xam ni foo foo fu téere bi génne rek gëtt gi xet xet yëpp di di di ñëw ci nit ñi mu daan wax naan gis gi rek doy na li ko ci sunu borom defal waxuma téye téere wala jànk waaye gis gi rek seen gi rek doy na sëkk kon sant yàlla bu baax ci buñ demee ba tey ji ñu koy mën a téye nii di ci mën a lu weeru koor bi yëpp ñu koy jàng ba mu jeex loolu it sant yàlla bu baax a baax xam ni xéewal yu gën a dolliku rek lay defal réew mi defal ko jullit di ci àddina bi yëpp ñu ngi ziar bu baax njaboot gi nekk foofu ca kees yëpp ziar bu baax mbooleem fu fi jullit nekk rek ndokkee leen ci weeru tedd wi nga xam ni ñu ngi ciy soññaat sunu bopp di ci soññ bokk jullit yëpp ñu gën a góor góorlu moom bu tàmbalee nit ñi dañuy am ay yitte lool waaye buñ demee ba def ayubés rek mu mel ne nit ñi te ñu ngi jub bés boobu waaw nit ñi day mel na rek euh, bakkan yeeg bànneex yeeg yooyu ak melow àddina ndax seytaane moom duñ ko tudd mooy noon bi gën a mag waaye sunu borom nee na weer wi da ko ci jéng da koy tënk jéng ba nga xam ni euh, duñu gàllankoor ci dara kon beneen gàllankoor bu mën a jóge rek ñu xam ni yi ànd ak doomu aadama te te lu su nekk rek mën nañu xeex ak moom nag mën nañu jëflanteeg bakkan bi mën nañu jëflanteeg bànneex yi euh, wàññi nelaw yi euh, yokk jaamu yàlla gi waaw wàññi yenn waxtaan yi jëmale ko ci njàngum alxuraan julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di wax lu baax yooyu mooy mooy xeex ak xeex ak bànneex yeeg xeex ak bakkan bi xeex ak nelaw àddina itam yooyu yooyu kepp mooy li mën a gàllankoor jullit bi ci weer wu tedd bu màgg bi te gannaaw loo ci def dañ koy ful nañ moytu itam ñu safaan bi noonu lañ koy fule waaw sunu borom dëxañal ci sallallahu alayhi wa guddi goo xam ni moo gën junne weer ndax xam ngeen ni xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gudd nu fan ni yonent yi ko jiitu seen xeet daan guddee noonu fan daan dund ay ñetti téeméeri at ñeenti téeméeri at xam ngeen ni junne at sax daanaka daan daan nga gis sunu borom ñi mu jëkk bind yonent yi mu jëkk bind yow yónni leen seen ay xeet daan dund loolu xam nga loolu euh, sëñ Aliou mbay da nga ci mën a profité bu baax a baax looy def di ko góor góorli di ko yokk nu mu gën a baree ngir ëllëg bu ñuy natt euh, balance yi say say yiw ëpp waaw gannaaw nag xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa moom ci boppam juróom benn fukki at ak ñett 63 ans rek la dund nga xam ni jullit bu ko am rek laneen lu ci dolliku rek bénéfice la ndax moom la nu sunu borom royloo ci lépp gannaaw nag xeetam amuñu gudd fan googu moo tax sunu borom ci teral gi mu ko teral ci bëgg gi mu ko bëgg tànn gi mu ko tànn defal ko at mu nekk guddi goo xam ni boo ko màggalee am ci yoolu junne weer te junne weer déet lu gën junne weer xayrun min alfi shahrin waaw xayrun moo gën junne weer waaw kon loolu mel na ni bu nit dundoon junne at itam jaamu ci yàlla yàlla nangul ko lépp yow lii la ci yàlla lu nu yàlla defal fii moom moo faw xa loolu ndax moo gënul sunu borom kenn xamul na mu toll kon nag ngir daje guddi gi jafe googu mu jafe ak li ci sunu borom dëxañ yëpp moo tax xam gi jafe waaye boo defee guddi weeru koor bu nekk ndax sunu borom baaxe na ci biir weeru koor la nekk boo fexee nag ba guddi weeru koor gu nekk nga màggal ko doonte ñaar ràkka la sax di nga daje guddi gi boo màggalee guddi yëpp donte ñaar ràkk nga màggale guddi gi dinga nga daje guddi laylatul xadri rawatina nag ñu am ay yeneen tegtal yoo xam ni ci biir weer wi daan ko ciy màggal ngeen ni ñu nu ko sëriñ bi diglee woon soxna may munatu sunu borom jagleel ko ko ba ñu koy woote woote bu yaatoo yaatu la 30 lay doon alxamis la 30 incha allah ci weer wi ñu nekk buñ ci tegee ñaari fan itam lu ëpp ci jullit yi ba ci Tuubaa googu bari na ñu ko ciy màggal ngir rek dajeek moom ndax li ëpp ci borom xam-xam yi dañuy wax ni ci fukki fan yu mujj yi la nekk te fukki fan yooyu nag moo gën a jafe moo gën a jafe ndax day fekk laatu kaaf gi am ak yëpp ak nit ku nit ki moom doomu aadama lu mu xaw a miin tuuti rek nam ko war a joxe ca du ko joxe moo tax fukki fan yooyu dafa mel na dañ cee war a gën a góorgóorluwaat na gën a dolli moo tax nitu yàlla yu mag yi dañ ci daan dugg waaw dañ ci daan dugg ci biir nekk ba bañ leen weer yu feeñ ba ci cheikh mouhamadou mourtada al mujahidul kabir waaw euh, itikaafam googu mi ngi ko daan def ci fukki fan yi mujj ci weeru koor noonu te noonu la ko waajuram Cheikhul Xadim daan defee te mi ngi ko royee ci rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam kon ñu ngi sëy soññaar sunu bopp di ci soññu mbokk yëpp ñu gën koo fonk fonk ndog yi itam fonk ndog yi fonk ndimbal yi nuy jëmale ci doomu aadama yi zakat ni ma ko waxee koo xam ni yow weeru kooru daaw denc nga téeméeru junne boo xam ne laaloo ci dara xamal ni génn ci ci weeru koor wii douze mille cinq cent def ko zakaat war na la bu dee un million vingt cinq mille képp la bu dee deux millions cinquante mille wax dëgg yàlla lii sunu borom di laaj sunu wërsëg barewul te nag mooy tax lii ci des barkeel mooy tax lii ci des duñ ci jënd ordonnance kon jëfe ndigalu sunu borom la ndax dafa doo bokk ci juróomi pank yi te fu sunu borom tuddee salaat rek zakaat la ci def ci alxuraanul karim moom la ciy teg fu mu tuddee julli rek asaka ñëw kon nan ko fonk bu baax a baax koo xam ne sa wërsëg ëpp na loolu mat na téeméeri junné mbaa mu ëpp ko xamal ni génn asaka war na la kon ñu fonk bu baax te boo ko génnee ci weer wi sunu borom da koy gën a ful laay maxtaar kon ñu àndandoo ak yéen sëñ Jamil si am ci wàllu son beeg yooyu yëpp ñu monti ñu àndandoo émission bi xam ngeen ni dañ ciy ànd saa su nekk ak euh, yëgle yi yëgle yi am ci biir weeru koor gi di ci soññee bu baax a baax ànd ak yéen itam ci téléphone bi ngir ndogu yi nga xam ne daan ko ci joxe tey ji yaakaar naa ne sunu pañe alxamis bi daan na ko indiwaatal tey kon benn pañe ngi fi boo xam ni valeur am juróomi junne la incha allah daan ko joxe itam tey balaa émission bi di jeex kon ñu dugal ay yëgle bu ko defee euh, sunu mbokk yi nu war a dalal ñu war a waxtaane bés bu màgg boobu ñu mën ko waxtaane ak yeneen éléments yu ñuy ñëw ak waa régie bismillah mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi sunu xalif général ba maa ngi toog ak sama rakk sama xarit Chérif Idrissa Laye ñu yor nag kàddu xalifa bi Seydina Baye Abdoulaye ñoo ngi ñaan yàlla na fi yàgg taam mu doon woote boo xam ni ci moom lu jóge ëmb njabootam gi yépp ci góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ñu jëmale woote bi nag ci mbokki jullit ñépp rawatana nag kilifa diine yi ndax bis bi day bisu lislaam kon bisu lislaam kilifa diine yi ñoo ko moom ak fu xalifa mën a ne ak sa njaboot bis bi doon bisub alquranul karim ñu koy màggale ci weeru koor xam ngeen lu tollook ñaar fukki at juróom-ñaar lii yàlla dogal na ñu ngi koy def kon nag bis baa ngi noonu mu ngi yem moo le 19 ci weer wii ñu ne ci mu doon dimanche ca urumu jàmm lay bu mam Seydina Issa Rouhou fii ci Cambérène mbokk yu tedd yi ginnaaw kilifa diine yi xam ngeen ni réew mi ki ko jiite moom itam ah am na lu ko koy def mënoo ko ci génne muy président de la république kon ñu ngi koy woo moom ak soxnaam soxna Marème fay waaye di ci woo gouvernement bi yëpp di jagleel nag aji Aminata Tall ndax moom la yàlla dogal mu doon ndey daara ji moom itam bis baa ngoogu ak njabootam. waaye beral ci loxo yit it may Maymuna Ndoy sekk mi nga xamante ni moom membre la ci daara ji moom itam ñu ngi koy woo Alaaji Maas Mbeng ak sama njaboot googu waaye fàttewuma maam Abdoulaye Kébé moom itam di sama loxo fàttewuma Alaaji Seex Seck di sama xarit moom itam programme bi nii rek la tëddee bu nu yàlla dimbalee ci 9h dañu fas yéene jiital kaamilu alxuraan jàngkat yi jàng ko bu ñu jàngee alxuraan ba pare dañuy génn kursi nag def ñaan ñaan googu bu ñu ca yeggalee day ànd ak sarax ñuy ñaan jullit yi ku mën a raam sax na nga ñëw ku feebar it na nga ñëw ndax faju aajo ngi ci lii mosuñu kaa def waaye ren programme bi dañu koy ubbee ñaan ñu ñaan yàlla ñëpp teewe ke mën a bokk ca ñaan ga ca biir ñaan gi nag sarax bi muy àndal mooy bopp bu nekk nañu dajale ñaar fukk ngir kaamil bi jox ko ñuñ ko war a jox kon loolu ñu ngi ciy woo ñëpp di ñaan yàlla yàlla nañ ko fekkee ak jàmm. fàttewuma sunu meeru dëkk di kambren muy mam Amadou Samba waaye fàttewuma suñu ministre di suñu maire di Abdoulaye Diouf saar di sunu xarit di sunu goro moom itam bis baa ngoogu moo ko moom Omar Gueye moom itam sama xarit moo ko moom ak nday nday nday ndey Sali Diop Alaaji Xalifa Sàll day sunu xarit day sunu lépp waaye woo mbooleem opposition bi ñoom itam bis bi seen bis la bis bi dafa am thème thème bi mooy wax waxdatul muslimin benn jullit ñi kon ñu ngi ciy woo ñëpp fàttewu ma nag sama waa kër turandoo gaynde Fatma borom naas Serigne Cheikh te sëñ Abdourahman Mbacke nekk ca bopp ba ëmb njaboot gi yëpp bis bi seen bis la waaye bis bi bisu jullit ñëpp la wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. bokki Milan ak province man la monsieur Samb président association GPM Milano tey nag dañoo amoon xew-xew bu rëy mu une conférence religieuse bu ñu fas yéene def di jéego à l'orphelinat Serigne Saliou bis boobu nag ñu ngi koy def le 19 mai incha allah ñu fas yéene ci nag yaatal ko cette fois-ci parce que mooy la troisième édition. conférence bi nag mu ngi ko parrainé daayira Touba Milan ci njiital sëñ Dame Guèye daayira 18 Safar ci njiital sëñ Sayer Ndiaye daayira sëñ Fallou ci njiital sëriñ Jiite. daayira Kalep yoo ñu teg ko ci loxo sëñ maam Thierno Sylla daayira sëñ Babacar Sy ñu teg ko ci loxol soxna Binta Gueye Binta Gueye daayira Tidiane bi nekk fii ci Milan ñu teg ko ci loxol sëñ Ndëri gay ak soxna Sinna gay ñuy woowaa traite saano yëpp ñu jàpp ci bés bi foofu lañ koy defee traite ñu teg ko ci loxol sëñ Sayar Dieng mu wool ñu waa Korsikoor waa traite saano yëpp conférence bi nag dañ ko marraine yi daayira Maam Jaara yi nekk fii Milan à province ñu gën cee ràññee daayira Maam Jaara bu Lecco ci njiital Soxna Jaara Gueye daayira Maam Jaara bu Monza ci njiital Ajaratu Fatou Wade daayira Maam Jaara bu Merone ci njiital Soxna Ndey Ñing daayira maam jaara ba tey bu Monza si njiital soxna May Njaay daayira maam jaara bu ci njiital soxna Jaxu Caam ñu di ko amal fii ci Milano ca saano sul Naviglio le 19 bu 10 heures jotee bésub conférence bu mag boobu di bésub sàkkub sadaxatul jaariya liggéeyal yàlla suñu boroom mi fay tay ak ëllëg ñu ngi ci ànd ak association Villa Amantea te nekk foofu sa Trezzano sul Naviglio te nga xam ne seen invitation ak invitation sindako ba monsieur Fabio Botero ñu ngi ko teg ci loxo suñu xarit soxna Abi Janko képp kuy jullit te am yéene barkeelu si ñu la ciy xaar bu ñu ci jógee 12 heures ba 13 heures dinañ def mise en place des invités 13 ba 14 heures le président de l'association GPM Solidarité dina def allocution de bienvenue dalalal ñu sunuy gan 14 heures ba 16 heures ñu fas yéene dugg dans le vif du sujet islam et orphelin maanaam ñun jullit bi lan moo war a nekk sunu taxawaay ci xale yooyu di ay jirim rawatina nag ñun waa diaspora bi ki amal waxtaan wi di sunu xarit sunu soppe oustaz Modou Fall mi nga xam ni Italie kenn dootu ko présenté dina ci ànd ak xaritam soppeem Abdoulahad Guèye bu lekkoo di ñaan yal nañu yàlla yeggaleel sunu sago ci barke yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa برب قفر قاد مان يا زندان باني نبايل سبي بار ما ينبغي xalif général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké comité d'organisation bu caravane sur le trajet Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon ñu am mbégte leen yëgal troisième édition ak caravane sur le trajet Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon comité bi nag di am mbooloom taalibe murid moo xam ne nii ñu ngay dund foofule ca Gabon ngir xeeñtu waaye itam dox ngir saytu jaar-jaari ku tedd ki di Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba foofule ca daal tëral gi kuréel at mu jot ñu daal di organiser euh, bile caravane ci woon ci kanamu taalibe ya foofale ca Gabon ginnaaw bu mu fa jógee nag soxna Jaara Bousso ak mbooleem njabootu Serigne Fallou Bousso ànd ci caravane bi ngir gunge ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi moom xalif bi jox leen ndigal waaye itam ñaanal leen ci liggéey bu am solo boobilee di jaar jaari Serigne Touba nga xam ne def na ko ca Gabon juróom-ñetti at yu manqué tuuti liggéeyal fa yàlla liggéey bu rëy comité organisation bi di fësal ne programme bi nii la fas yéene tëddee daañu amal départ bi ci Libreville ci alxamis ci bisu fukki fan ak juróom-ñett ci wéeru juillet ajuma fanaane faa jàng alxuraan fanaane faa jàng xasida waaye itam fanaane faa def ay zikrula ci bisub ajuma bi nag daañu fa amal journée maam ne dañ koo tuddee soxna Mariama Bousso maam jaaratulaa amal fa ay waxtaan ci njàngaleem Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul yéen doo faa jàng xasida waaye itam yéen doo fa amal ay visite yoo xam ni daañu ko def ci mbooleem site yi nga xam ne nii ku tedd ki daf faa jaaroon ndax foofale ca Mayomba Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul sax na fa juróomi at foofale itam fa la ñuy fas yéene daje ak mbooleem autorité administrative yu dëkk bi le di Mayomba amal fa ab cérémonie officielle bu am solo amal ko ak maire dëkk ba ak mboolem autorité yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee foofale ca Mayumba ginnaaw bu ñu fa jógee nag ci samedi bi bu ñu dellu fi nga xam ne moom moo di ci Libreville daañu jaar ci yoonu ci dëkk bi ñuy wax Lambaréné boobu la état bi tam daañ fa visiter ay sites yoo xam ne ni Serigne Touba jaaroon na fa waaye tam waxtaane fa jaar-jaari Serigne Touba yi ca Gabon di jaar-jaar yu am solo yoo xam ne ni ku tedd ki def na fa daanaka juróom-ñetti at yu a 2019 di woo mbooleem mbokki taalibe yi nga xam ne ni ñoom ñoo nekkee foofu la ca Gabon ngir ñëw bokk ci bile caravane waaye itam mbooleem taalibe boo xam ne bëgg ngaa ñëw barkeelu si ci boobile caravane itam mën ngaa jokkoo ak ñun ci numéro yi 00 yi dinañ leen teg ci aw yoon ba ngeen mën a barkeelu ci caravane bu am solo bi nga xam ne ni day xeeñtu ak a topp jaar jaar ca Gabon mu nekk jaar-jaar yu am solo yoo xam ne nii juróom juróom-ñaari at Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di fa jaamu yàlla di fa wétal boromam. Caravane sur le trajet de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon du 18 au 20 juillet 2019 au Gabon ñu ngi ciy woo mbooleem taalibe yi bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu ñenn. jërëjëf euh, Seydi Jamil jërëjëf euh, Laay Maxtaar ak euh, Am ci yëgle yu am solo yooyu nga xam ni indi ngeen ko fii ñu tàmbalee ko ci bi ci jiitu bi Serigne Cheikh Mbacke Laay daaraam jooju nga xam ni am na solo lool léegi rek sama caméraman mi ngi wax naan waajuram bu jigéen fa la jànge ndax dana am ay mag ñoo xam ni fekk daa fa mag ñoo xam jàppoon nañ ni mënatunu jàng sax saar yi nuy jullee te yooyu yëpp ca daara ja foofu sëñ Cheikh Mbacke laay ba tey jii dañuy téye seen kaamil di jàng kon muy liggéey bu am solo ñoom it bés boobu ñu ngi ciy soññu suñu bopp di ci soññu ñëpp kazalika naka noonu mbokk yi nekk Milan ñoom it seen woote boobu incha allah ñu euh, fonk bu baax a baax ndax moom defe ko fépp baax na waaye nag ci réewu nasaraan yooyu nga xam ni da ngay mën a wàññi jullit yi hmm. defe ko fa mooy gën a amati solo ba gabon gii nga xam ni sëñ Cheikh Mbengue jàmbaar jooju mooy mi ngi koy soññee gabon nag xam ngeen ni sëriñ bi fa la liggéey liggéey bi nga xam ni moo waral màggal gi maa yomba googu mu wax ak Lambaréné ak Libreville ak yooyu yëpp caravane bu am solo la boo xam ni ku ko yàlla mën loo bi ma jëkkee dem gabon bi ma ñibbisee dama ni moom daal ndekete loo gëm gëm gëm sëriñ bi ba jàpp nii gëm gi nga ko gëm dara du ci dolliku boo demee gabon mu dolliku waaye bi ma demee Mauritanie itam loolu laa waxaat. macha allah waaw loolu laa waxaat. te ñoom ñaar nag donte ñaari tukki yi du benn. waaw ndax bi ay épreuve physique la woon béréb yu tumuranke bii di épreuve psychologique. ak ak ak intellectuel muy digganteem ak euh, naar yi. xam-xam beeg yooyu yëpp ba tax na kon ku ko mën daal nga waajal ko bu baax di leen fàttali itam euh, bésu. bi nga xam ni le 26 lay doon incha allah laay maxtaar te bés bi di amee ci di am ci ndigalu xalif général des Layènes euh, jigéen ñi nga xam ni ñooy waa déggoo ñoom ñoo koy woote ci fi nga xam ni mooy Cambérène quartier quartier quartier déggoo waaw quartier déggoo ci wetu këru chef de quartier bi ñu ngi leen koy fàttali bu baax a baax di fàttali conférence bi nga xam ni itam euh, sëñ Abdoul Aziz Mbacke ibnu sëñ Modou Fatou Khali da koy def moom it at mu nekk euh, le 19 corniche euh, terrain amoo cinq géejawaay foofu la koy defee ñu ngi leen koy fàttali bu baax sëñ Modou Habib Diouf bés bi muy woote at mu nekk fii ci Fleur de Lys fii ci Almadi le 18 lay doon incha allah euh, conférence lay doon fii ci Almadi ci ngoon si. soppey euh, maam Cheikh Anta yi fale ca gaawaan fukki fan weeru koor xam ngeen loolu yegsi na ba noppi <coughs> yaakaar naa ni gannaaw suba la wala gannaaw waati suba ndax tey la am yaakaar naa ni imaam juróom ñaari fan waaw euh, léegi euh, conférence boobu nag ñu tuddee ko maam Cheikh Ibrahima mi ngi amee gaawaan mbaar moom nga xam ne moo nekk ci buntu kër Serigne Moustapha Ceytu moom maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam ñu ngi leen koy fàttali bu baax a baax di fàttali itam Euh, concours bi nga xam ni sous régional la sëñ Ahmed Saloum Dieng di ko woote at mu nekk ca kees terrain stade Lat Dior nga xam ni fu nekk la jànkatu alxuraan yi di jóge di ci ñëw mooy mi ngi am le 25 ak le 26 bi mooy vingt e euh, édition bi. macha allah waaw soppe yàlla amin yi. waaw soppe yàlla amin sëñ Abdoul Aziz si yàlla aminu waati waawoon yooyu nga xam ne association bu am passif taxaw ci këru diine yëpp nag ñoom këru diine yëpp lañ taxaw ngir gën a rataxal li nga xam ne moom mooy liggéeyu mag ñi ñoom it incha allah ñu ngi leen koy fàttali bu baax a baax euh, seen euh, bés boobu di fàttali itam euh, forum régional bi ma waxoon léegi moom it su régional sax mooy bu sëñ Abdou boobu léegi nag li ci des mooy ñëwaat nag ci concours concours Sénico bi concours national bi nga xam ni ñi nga am mbégte lool dalal imam al oustaz sëriñ Aboubacrine fay moom bokk ci comité directeur bi bokk ci bureau exécutif bi yor ci ay pàcc yu am solo ñuy ànd liggéey bi saa su nekk tey jii sax ñu bari ci ñun ñi amoon nañu ngànt ndax ñi ngi xëy euh, Grand Théâtre ak waa police ngir mën a saytu mbooloo mi ñu mën a ñëw ci jàmm dund xew-xew bi ci jàmm dellu ci jàmm waaye ñi ngi am ñi ngi woote itam conférence de presse fi ñu toll nii ca institut islamique fa lañ julee tisbaar ñun ñaar ñëpp fa lañ jógee itam ñëw nii di def émission bi ndax xam na ni lii itam ci wàllu liggéey boobu la bokk ndax naka jekk euh, groupe Futur Média partenaire u Sénico la partenaire u bi la ci lépp loo xam ni promotion alxuraanu karim la sëñ Abou Karim ñu jox la kàddu gi gannaaw buñ la nuyoo sant la nga <coughs> am liggéey yu bare bare ndax euh, ba ci wàllu pèlerinage bi commission bi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu communication beeg yooyu yëpp euh, ci la bokk daaw rek gis ngeen image yi ma wane fii ci télé bi maa ngi ko filmé ci Kaaba gi. muy tawaaf ak ay bare bare di di leen ziar. jërëjëf seen ji lii. Mm. aoudu billahi min ashaytaan arrajim. bismillahi arrahmani arrahim. alhamdulilahi rabbil alamin. wal aaqibatu lil muttaqin. ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu waliyyu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu soppe yi xarit yi seetaan ci waxtu wi waaye asalaamaaleykum wa rahmatullah seen jili waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakatuh kon ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la ndokkeel ci liggéey bu rafet bi nga nekkee hmm. di nuyu mbooleem téléspectateur u TFM hmm. ci biir réew mi ak ci biti réew mi ak ci àdduna bi fépp hmm. alhamdulilah imaam ñuy waaj xew-xew bu mag. xew-xew boo xam ni at ngi nii ñu ngi koy waajal. ndax concours national Sénico daanaka bu nu jógee ci édition rek tàmbali nañu waajal. ndax cinq départements yi ci Sénégal gépp dañu am jongante seen biir. département ñi cay génn daje ca région ba. 14 régions yëpp am jongante ci seen biir. bu nu noppee nag. indi ñeent fukk ak nangam yi nga xam ne ñoo génn ci 45 départements yi ak 14 régions yi ñu ñëw fii. suba incha allah institut islamique la ñuy tàmbalee seen jongante ñetti fan. ba ñu tànn ñi nga xam ne nag premier bi incha allah ren imam 15 millions lañ ko yóbbu. alhamdulilah nga ñëw ci historique bi. jërëjëf seen euh, jili hmm. balaa may sori foofu damay delluwaat rek. pour woo ñëpp. Hmm. ñu mën a waajal xew-xew boobu. Hmm. ndax bu ñu ubbee alquran dañuy fekk yàlla di wax ni aoudu billahi min alsheytan arrajim ya ayuha alladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum lima yuxyikum ku dégg loolu rek xam ne am na lu xew li xew ñi ko xewal mm-hmm. fan lay xewe mm-hmm. ak kañ la Mm-hmm. yaakaar naa looloy woote bi. Mm-hmm. lu yàlla wax yàlla dafa woo ñi gëm. Mm-hmm. kon jullitu Sénégal. way gëmu Sénégal way gëmu àdduna bi yëpp lañuy woo. ci bis bu màgg boobu. lan la yàlla wax wuy si leen bu ñu leen wooyee ci yàlla woo leen ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam. ci loo xam ne bu ngeen demee day dundal seen xol. li gën a gaaw a dundal xol doomu aadama mooy alquran. dund boo xam ne da jural teraanga àdduna ak àllaaxira yal nañ ko yàlla boole defal li xew mooy la doon xew ay at mm-hmm. ren mooy juróomeelu at bi ñu war cee jëm dimanche bi ñu jëm incha allah ci grand théâtre mm-hmm. waaye comme ni nga ko waxee lu jiitu grand théâtre euh, ñeen fukk yooyu ak juróom yi ñu jëlee ci quatorze régions yi mm-hmm. ñoom lañu war a tànn ñi nga xam ne ñoo war a génn ren ci édition ren bi su ko defee moo waral suba talaata àllarba ak alxamis ñu noppalu ajjuma ak dimanche ak gaaw waaw ajjuma ak gaaw ñu noppalu ajjuma ak gaaw dibéer ñu ñu ñu ña mun a fanaani grand théâtre fanaani foofu ña fa woon mun a xëyee xëwe foofu kon ren mooy juróomeelu édition bi mhm. yàlla dogal itam bi muy am mhm. mu amee ci li méngoog ni Sénégal bindoo mhm. ndax fédération bi nga xam ne moom moo boole mbooleem walla ñi gën a bari ci mbooloo yi nga xam ne ñooy yittewoo njàngum alquran ci réew mi. Mm-hmm. lëkkaloo ak bailleur bu mel ni Sénico. ci njiital Abdoulaye Dia fédération bi ci njiital sëñ Moustapha Lo. Mm-hmm. ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na yàlla yàggal seen taxawaay. yàlla sàmm leen aar leen musal leen ci lépp luy gàllankoor. defal leen ko defal ko mboolem jullit. amiin xam nañu ne ni Sénégal demee mënuñoo dem te fekk ñi sàncoon réew mi. ne fi tax na bi ci édition bu njëkk ba ñu tuddee woon ko Cheikh Omar al Foutiyou Tall. Mm-hmm. Mm-hmm. ñaareel édition bi ñu tuddee woon ko Cheikh Ahmed Sakhir Lo. Mm-hmm. bu kokki ñetteelu édition ba ñu tuddeel ko Serigne Mouhamadul Hadi Touré. bu fas ture hmm. di waajuru Abdoul Aziz di suñu xarit di suñu hmm. wëllëre. di suñu sëriñ. Hmm. nga xam ne daara ja moom moo fa ne. ñeenteel ba muy. daaw ñu tuddee ko Serigne bu Mbacké. ñoom ñëpp yal na yàlla yokk seen yërmande ak seen leer. yokk seen jéggal. bu bi. yàlla dogal ñu tuddee ko Serigne Babacar si di taawu si xaaj Malick si kon ñooñu kuy def lu mel ni mu aju ci alquran tànn kàngam yi yow am na loo bëgg bëggoo bàyyi dara bëggoo bàyyi kenn bëggoo beddi kenn amul kenn itam kuy ut lay ne boolewuñu ma ci kon loolu mooy mise bu njëkk bi ñaareelu euh, ràññeeku ràññeeku bi ci am ren mm-hmm. ren mooy ki topp ci imam bi nekk ma Madina. moom la ñu ji moom la ñu invité ren. fi mu ne nii balaa yàgg am na waxtu boo xam ne ku dem ci jumaa ju mag ji mu ngi fay def benn conférence de presse. Mm-hmm. pour ñu xam mooy kan. Mm-hmm. ñu leeral ak it nan la ñu war a tànnee ak nan la ñuy tànnee xale yi. kooku nga xam ne bu imam ci ci jury yi gën a mag ci adduna bi voilà. ndax ndax jekku gi mu jekku alquran. jekku alquran. Mm-hmm. alhamdulilah mm-hmm. ñu Mouhamad Mahmoud Bousso. Ah, déedéet moom sax moom daf ñu ci soññu. moom sax moom moo moo ubbi buntu boobu. Mm-hmm. pour kooku mun a ñëw ndax moom moo leen fi nekkal. dëgg la maanaam lépp luy am ci alquran ci adduna bi. Bousso bokk na ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy tànn. ñu war a jiite loolu. te muy sagu Sénégal. wallaay muy sagu Sénégal kon bu fekkente ne lii am na ren. Hmm. réew mi yëpp ko war a dégg. waaye ñoo ko war a waajal ñoo ko war a xam. am na ay gan yu jógee ko bitim réew ngir alquran. ñi dëkkee ci réew mi loolu waru leen a. wallaay rawatina ñi nga xam te loolu te loolu imam. dafay gën a yokk crédibilité concours bi. concours bi alhamdulilah ndax concours bi am na crédibilité ba at yi yëpp ci la ñuy jëlee ñiy dem ci concours. international international waaye bu ñu demee nag ba jury international. di ñëw jiite jury international ñëw. alhamdulilah bokk ci ñiy natt xale yi fii. loolu day tax ñu gën a xam ni concours bi. kon euh, concours bi daanaka nekkatul concours national mais concours dimension internationale am. Mhm. loolu kon waa réew mi yëpp war koo waajal mhm. euh, dégg naa ngay wax benn programme bu war a am le 19 mais Dakar moom. bugguma kenn organiser fi <laughs> dara kenn woote bugguma fenn kenn organiser fi dara. wala wala looy woote mooy. mooy woote ci bés gannaaw tisbaar. xanaa ah gannaaw tisbaar tisbaar. Mhm. waaye lii moom. ci dimanche incha allah. bu ci kenn jéem lenn. ñëpp bu ñu xëyee na ñëpp babbeeku dem uta di grand ngir lan ngir sagal seen bopp ci alquran. Mhm. ndax alquran ki koy jàng ak ki koy déglu. Mhm. ak ki koy xool te jàngul. Mhm. ñoom ñépp ñoom ñoo am tiyaaba ci alquran. la preuve que mooy. yàlla addu wax ci alquran ni auzu billahi min asheytaani rajim. inna alladina yatluuna kitaaba allah. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله innahu ghafurun shakur. rek lañ soxla. yàlla ne ñi nga xam ne dañuy jàng Alqur'an. allahu akbar dafa mel ni asamaani juróom-ñaar. ak suuf ñoo jokkoo yàlla tiim waa àdduna. dina ñi nga xam ne dañuy jàng Alqur'an. maa ngi félicité képp kuy sëriñ daara. Mhm. waaye maa ngi ci ndokkeel képp kuy. ndongo daara waaye itam maa ngi ciy ndokkee laata képp kuy yaayu daara yaayu daara ak baayu daara ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel ci mm-hmm. wax jooju yàlla waxal boppam subhaana mm-hmm. seen jiili ak waajuru doon ak waajuru daara yi nga xam ne ñoo attana dagg seen daggitu xol muñ ko joxe seeni doom ngir ñu mm-hmm. dem jàngi alquran kon yàlla ñi nga xam dañuy jàng alquran alquran di def ci ñoom ñuy taxawal julli te di ko saxoo am ñeneen ñoo xam ne amaan na jàng nañu alquran waaye ñuy dépenser seeni alal sirran wa alaaniya ku demee ni ngóor si wala mel ni Abdoulaye Dia ak ñi mel ni moom mhm. sirran mooy lu kenn yëgut te yàgg naa def lu mel noonu mhm. wa alaaniya mu def sponsori lu toll nii mhm. lu jëm ci deux cent millions loolu yombut ah, budget bu tàmbale woon ci million jëm ba yéen lu matul juróomi at léegi dem na deux cent millions feek ah, fukki at romb wala feek fukki at wala feek fanweeri at mën ah. ngaa séentu ah. milliard dinañ ko def lu jëm ci jàng kon yàlla ne wa alaaniya hmm. mooy ñu biral ko ba ñépp képp kuy defati sa alal nga xam ne fii la ñu war a def alal. Mhm. te mooy moo ko moo jar a def alal. Mhm. xayru maa yunfaqu maalun. mooy kitaabullahi subhaanahu wa taala. li gën ci lu ñu war a génnee alal sa dugal ko ca. Mhm. mooy tere yàlla subhaanahu wa taala jàng ko ak jàngale ko ak yare ci. waaye xoolal li ci yàlla def bàyyiwul dara yarujuuna tijaaratan lan tabuur lan tabuur mooy waaw dootuñu perte mukk adduna ak àllaaxira commerce bi gën a rentable ndax yàlla bu waxee la lan. du tey ak ëllëg. Mhm. la boo daa boole àdduna ak àllaaxira kon garanti yëpp garanti yàlla moo ci gën a wóor. te ñoom yàlla garanti na leen. Mhm. kon euh, waa Sénico. Mhm. ak ñu mel ni ñoom. ak waa fédération bi. amatuñu droit def lu leen delloo ginnaaw. ci kanam rek ndax yàlla àdduna. wane ne lan. te mooy tey ak ëllëg. àdduna ak àllaaxira dootuñ ci sooy. jërëjëf. waaye lim ci dolli li yuwaffiyahum ujurahum ngir lim leen dencal ci ay teraanga mu matal ko ngir alquran bi mhm. teral leen adduna teral leen alaxira mhm. waaye itam wa yaziduhum min fadli mu dolli leen ci ngëneelam hmm. ngëneelal yàlla kenn xamul ni mu toll yal nañu yàlla boole ci ñun alquran yal nañ ko yàlla boole seen ji bi barakallahu fikum amin jërëjëf imam kon euh, daanu ñëwaat léegi ndax daanu ñëwaat ci tout tànk yi incha allah suba la ñuy commencé tàmb yegsi nañu dalal na leen dal yu baax a baax dal yoo xam ni incha allah ku ci yàlla wërsëgale tam suba nga doon dem bitim réew ci concours international yi ci dal yu mel noonu lan lay dalal kon concours bi itam mi ngi ci boole di waajal dongo daara yi ba bu ñu génn génnatee réew mi itam liy tubaab di wax dépayser du ñu dépayser wu du ñu ba mu leen di xaw a jaxase ba ni ñu war a doxalee duñ ko mën kon loolu ñu ngi ci bàyyi xel lii imaam wax itam muy wàllu yokk gi budget bi dem ren ci deux cent millions yokk gi feeñ na itam ci prix bi ndax premier prix dix millions lañ doon def ñaari at yi ñu génn waaye ren ji insha allah quinze millions la jëm kon euh, imaam ah. euh, émission bi dañ ko bokk ak euh, téléspectateurs yi ci 88 628 22 22 wala 88 628 65 65 ak 88 628 04 05 ngeen ànd ak ñun bu leen fàtte itam euh, daa ngeen ànd ak ñun ci waxtaan wi waaye daa ngeen ànd ak ñun itam ci ndogu li nga xam ni incha allah tey ji daan ko joxe direct la imam euh, léegi ñu fàttali itam kenn koo xam ni membre la ñu ngi ko fa bàyyi léegi sëñ ji Ndiaye Cheikh Ndindi sëñ Daara moom it conférence bi nga xam ne at mu nekk mu amal ko génn promotion bi nga xam ni da da koy amal ca Daaraam foofu ca Touba promo incha allah bés boobu le 30 lay doon muy bésu euh, soxna Maymunatu bésu laylatul xadri yi foofu ci Touba alxames le 30 kon ñu waajal ko bu baax a baax mi ngi ko dara jaale invité d'honneur bi sëñ Abdou Aziz Touré mu faas mi nga doon tudd léegi ki nga xam ne mooy parrain bi nag moom i doomu alxuraan la léppam mi ngi koy def ci alxuraan ci alxuraan la génnee muy sëñ buub bu sëñ baara mbuub euh, bu CCBM kon incha allah laay maxtaar kon ñu indiwaat tuuti ñaari yëgle bu ko defee imaam waajalaat euh, faneen ci nu muy soññe ci ñëw bi ak teewaay bi ci Grand Théâtre incha allah dimanche. yaakaar naa jaar nañu baax na. macha allah. فشيخنا عمر نور ولاياتي فاقبل زيارتنا يا ربي فاقضي لنا جميع ما نرتجيه من كل حاجات bandiraɓe julɓe assalamu aleykum bandiraɓe on nani nde ɗo dande nani ngoɗo noddago ngoɗo noddago noon ko yamrore halife men sérine babacar sy halife général tidiani e ceerno men ceerno basir muntaga ahmadou muntaga e ceerno men ceerno manande ceerno men ceerno madani e ceerno men manande ceerno abou ɓesgu ceerno abou kawlak e ceerno manande ceerno bara alpha kawlak manande e ceerno ɓesgu ceerno hamdou rabbi diaji e ɓesgu manande ne didori ɓesgu manande julɓe fof no potiri e gardugol manande délégation ummotoɗo gambi e gardugol e, e imam babeli e alaji amadou jiggo so ɗum wona ɗum ko e délégation ummotoɗo ummotoɗe ɗi kamɓe fof ɓe noddama e ngoɗo noddago noddago no noon ko noddago ceerno men ceerno bara noddago ngo inchallahu rabbi ongo wonata ko sappo e lewru nduɗo no gonɗen lewru tubak ɗum waɗata ɗo ten ɗo caaroy caaroye tali diallo ɗo ɗo bayal alaji mansour ɗo ko ɗon waɗatno hikkuɗe en watta ɗon hikka ne yaawi duuɓi jeeɗiɗi ɗum ɗon noon nodda kala nanɗo danamde yo andu ngoɗon noddago ko noddago muɗum ko noddago julɓe foof ɗum ɗon noon allahuma salli ala seydina amadou wa sallim assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki sénégal mbokki caaro ñu leen di nuyu di leen fàttalil septième édition bi ñuy defaat conférence annuelle ci caaroy ci njiitalu suñ kilifa Thierno Bara ah ñu ngi ci woo nag son excellence euh, président de la république Macky Sall di woo soxna Mariam fay Sall di woo préfet euh, département Pikine Dagoudane di Omar Ndiaye di woo maire Jidda Thiaroye Kaw Cheikh Dieng di woo maire Thiaroye Gare Babacar Sène ak suñu marraine bopp Souadou Ba ak mboolem euh, responsable politique yi nga xam ni ñoo nekk ci département Pikine ak Thiaroye ak ñëpp ñu ngi woo itam uh, bépp daayira boo xam ne ni surtout uh, mutahaabina fillaahi ci njiitalu Hawa Samb di woo waa Kaolack di woo waa Nioro di woo waa Bandoul di woo ñëpp waaw bàyyiwuñ kenn kuñ ci fàtte itam xam ne uh, fàtte bi fàtte wuñ ko ci xel yi ñu ngi koy woo bu baax a baax waaw ci ci mboolem tariqa yi itam ñu ngi leen di woo surtout nag liñ fay waxtaanee incha allah bi yoon kollëre lañ fay waxtaanee dañ fay ci al alquran dañ fay def ay dog dañ fay def ay xadara juma ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñ kenn. salaamaaleykum wa rahmatulah. mbokk yi mi ngi noonu bis baa ngoog kañ lay am le 19 mai incha allah fan ci toolu Serigne Mansour Cheikhil Xawmi waaye nag buñ ca yàlla yóbbu fàttewuñu soppe ba kan Thierno Dame Seck fële ca cene ba ñi ngi ciy woo mboolem koo xam ni imaamu ratib la nekk ci caaro yi bu nu ca jugee ñoo ngi woo mboolem délégué de quartier yi waaye nag fàttewuñu dawaa iri nu wër kan Ahmadiya ki nga xam ne mooy Kiram ak ki nga xam ni mooy Dairatu Nihmati ñi ngi ciy woo ñëpp mbokk yi bis baa ngoog Thierno Bara ko woote fan lay yi wasalaamualeykum rahmatullahi taala wa barakaatu mat an uqbati asimin bokki réew mi bokki bitim réew asalaamaaleykum yéen a ngi ceetu kër Sidi Hadj Malick kër Serigne Amadou Anta Samb Kébémer daayira bu mag bii nga xam ni mooy jamiya bu Sidi Hadj Malick imaam Amsata samp yal na ko yàlla dolli leer defan ko fi ñoo dellu siwaat nag at mu ne conférence bi ñu leen di defal ci weeru koor ak kan Serigne mbay mu ma laaj Abdou Aziz Ndiol Fouta war koo def nag fukki fan ak juróom-benn muy le 16 ci Kébémer tubaarkàlla moo dellu siwaat nag ren ñu tuddee ko nag alaaji ko déggee mu Serigne Mansour Jamil ak ki nga xam ne mooy présidente fondation Mame Fawade Wellé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 bu ngeen gisee jataay bu tedd bi ak xar kanam yi dingeen xam ni am na lu rëy lu xew lan moo xew comme ni ko sunu woyjur alxaaji jaaja mbay waxe muy bës bu rëy bi nga xam ni moom la jamiya Cheikh di Hadji Malick di def fii ci Kébémer te ren di fukki yoon ak juróom benn tombeeg le 16 ñu ko def fa tabaarakallaahu ca de public bu Kébémer comme niñ ko daan defee ci ndigalal kan Serigne Babacar Sy Mouhamadul Mansour xalifa général de Tijane yal na yàlla guddal fanam te yokku ko wér ak nag ay rakkam yëpp ku ci mel ni Serigne Pape Malick si di porte parole njabootu Cheikh Seydi Hadj Malick Serigne Maodo si ibnu Alhaji Abdoul Aziz àndandoo nag ak président wu jamiya bi muy président Amar ak président donneur bi muy Alhaji Malick Fall ku mel ni Alhaji Salif Ba ku mel ni itam Alhaji eh, Yoro Mbuub ñu àndandoo nag ak jigéen ñi suñu bàjjan ajatulaw bi Mbuub ak mboolem ñi mu ko seqal. ñu àndandoo ak soxna Indu ñu di ko ndokkeel président fondation Mame Fawade Wele ñoom ñëpp ñoo àndandoo di ko yëgal jullit yëpp. ñu santaat sunu boroom moom mi nu may fekk ko daa fekke ko ren ñuy del si at nag ci yàlla di ko sant di ñaan mu yàgg ak jàmm jaar fa mu daan jaar mel na mu daan jaar ci barke Seydina Mohamed. ñoo ngi sant ki nu koy defal Serigne bay Abdou sunu xarit sunu Serigne yàlla na yàlla fayal nu ko barke Seydina Mohamed barke maamam Sidi Asi Malick si. kon mbokki réew mi bis baa ngoog Kébémer a ngi woo ñëpp alxemes fukki fan ak juróom benn ci weeru mai fa anta lana rukunun isun wa mafsawun isa saddadil aqwalu fi sirri wal jahri auzu billahi mina seytaani ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp du nuyu Sénégal yëpp ma bu ngeen gisee sànce yu jekk yi ak toogaay yu jekk yi ngeen xam ni njabootu Khalifa Sall ñoo woote ñoo woote bis bu mag muy conférence ñu koy def le set ci hôtel de ville kan mooy def conférence bi al oustaz Iran Ndao mi nga xam ni moo bëgg Khalifa Sall yéene ko jàmm te di ko ñaanal jàmm kon conférence baa ngoog ñu ngi ci woo sénégalais yëpp di ci woo Khalifa si yëpp di ci woo mboolem parti ak responsable yi. conférence bi nag daf ñoo intéressé lu tax mu intéressé ñu xalifa de di kenn ci ñun te jour boobu lañ ko fas yéene rendre hommage di ko patronné nag ñu am solo. marraine ko koo xam ne nag kenn la ci ñun ki nga xam ne moo wuutu xalifa Sall ci mairie Ndakaaru te topp ci tànku xalifa Sall ki nga xam ne moo am kóllëre ki nga xam ne mooy jàmbaar mooy kan mooy la mairesse madame Soham El Wardini di ci teg nag ki nga xam ne mooy première adjointe au maire di suñu xarit di suñu càmmiñ di ci teg ki nga xam ne mooy deuxième adjointe au maire di madame Ware Diaw di nit ku baax di ci teg nag ki nga xam ne ci ñun la bokk di suñu doomu ndey ki nga xam ne nag moom moo représenté lébu ndakaaru muy madame le maire Ngoné Mbengue di ci teg nag ki nga xam ne moom mooy Mbacke Seck ab képp koo xam ne adjoint au maire nga ci ndakaaru képp koo xam ne conseiller municipal nga ci ndakaaru ah nag di ko def sous présidence nag effective da ay jàmbaar ay maire yoo xam ne mosu daw ay maire yoo xam ne ñoo aar xalifa Sall ñoo nekk ci terrain bi ci tuuru xalifa Sall di ci wax maire boo xam ne jàmbaar la muy le maire Barthélemy Dias di ci teg koo xam ne moom mooy Idrissa Diallo di ci teg koo xam ne Cheikh Gueye la di ci teg koo xam ne Babacar Mbeng la di ci teg koo xam ne Paala Samb la di ci teg koo xam ne nag mooy meeru xalifa Sall muy ma Jóob Jóob bu Grand Yoff bu ñu weesoo loolu dañuy woo ki nga xam ne moom mooy directeur de cabinet du maire mu Birakan Ndiaye di ci teg ki nga xam ne mooy Moussa Tine Moussa Tine mi nga xam ne moom moo jiite li ñuy wax en tant que Dakar di ci teg koo xam ne mooy le premier adjoint au maire de la ville de Dakar nekk maire Médina di suñu xarit di suñu càmmiñ di la maire Bamba Fall. tey nag socialiste des valeurs yi ñoom ñoo mokkal nag nag di tari nag woote nag. si grande conférence bi nga xamante ni ñu ngi ko war a def le 17 vendredi bii di ñëw incha allah bu soobee yàlla fan lañ koy defee si enceinte ville de Dakar mi ngi war a commencer 9h ci suba ñu ngi ciy woo ñëpp nag. bàyyiwuñu benn jigéen boo xamante ni xalifis nga bàyyiwuñu benn président de coordination bàyyiwuñu benn mouvement bu bëgg xalifa Sall. ñun njabootu xalifa Ababacar Sall ñun waa ville de Dakar ñun ñoo woote conférence bu rëy la 17. ñu ciy woo jigéenu Sénégal yépp di rawatina nag jigéenu opposition bi dañu bëgg ñun ñépp nañu ñëw ci conférence bi nga xam ne moo am le di 17 à l'hôtel de ville ñu ngi ciy woo ñi nga xam ne këru diine yépp ñu ngi leen di woo ci conférence bi rawatina nag waa kër Khalifa Ababacar Sall. di woo képp ku nga xamante ne jeune nga nekk Sénégal nekk Dakar bëgg Khalifa Sall tax boo seetloo xalifa jeunes yi ñoo ko gën a bëgg ak femmes yi donc ñu ngi woo jeunes yi di woo jeune waa Madické Niang yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ak jeune bi ak jeune pouvoir bi ndax am na ñu fa nekk ñu bëgg Khalifa Sall ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo pour la réussite ci suñu conférence bi nga xam ne thème bi mooy kóllëre di leen ñaan yéen ñëpp bu ngeen ñëw ngeen sol yére bu weex teg ci col bu verte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 di ci woo jullit yëpp nag di am ndigalu nag xalif généraux yëpp di ñaan yàlla yàlla doole seen barke di ci woo ki nga xam ne président Ousmane Tanor Dieng di secrétaire général du parti socialiste ak kan madame la ministre Aminata Mbengue Ndiaye di présidente mouvement national des femmes socialistes Mar Diouf secrétaire union régionale de Dakar di responsable département bu ak ki nga xam ne mooy Libaas Jiite muy responsable département de Pikine ki nga xam ne mooy Alaaji Doudou Issa Niass muy responsable département de Dakar Adja Aïda Sow Diawara mu yor département Guédiawaye yëpp ak charge parti bi ak membre bureau politique ak jeunesse socialiste ak képp koo xam ne yaa ngi jullit ngay wax ashhadu an laa ilaaha illallaah ak foo mën a nekk rek te bokk ci parti socialiste ñi ngi la woo ci conférence bii bàyyiwuñu nag benn association bàyyi ñu benn daayira ndax ñiy organiser lu waaye organiser ci Sénégal war ko ci wàllu diine ñu ñoo jàppale la kon nag ñoom seen bopp ñooy woote leen jox rendez-vous ajjuma le 17 fii ci maison du parti bàyyi ki nga xam ne mooy Adja Aïda Sow bisimilah mina seytaane rajim bisimilah rahmaani rahim barki sëñ Fallou waa mbokki Sénégal bés bi ñëwati na muy sunu conférence bi ñuy def at bu ne ren jii ñu ngi koy def àjjuma bii di ñëw muy le 17 mais ci maison du parti socialiste ñu ngi koy def nag ci ndigalu xalif généraux yëpp waaye nag ci teewaayu Ousmane Tanor Dieng président au conseil des territoires ci teewaayu kan sunu président national mu Adja Aminata Mbengue Ndiaye di ministre de la pêche. di ci teewaayu kan ci secteur généraux ak président département yi. département Dakar ñu ngi woo Anta Sarr ak Doudou Issa Niass département Pikine ñu ngi woo Khadiba ak Libaas Jiite département Tëngéej ñu ngi woo Ouley Diaw ak Mar Diouf département Géejawaay ñu ngi woo ba dara Faye ak ak euh, Fat Badiane dama wax ne bés bi moom bàyyiwuñu kenn ñu ngi woo suñuy nawle député yi di woo nag ki nga xam ne mooy suñu càmmiñ di président la république di woo suñu sunu xarit sunu soppe di première daan sunu parrain di Mass Mbengue sunu parrain à ñu ngi koy woo moo famille am yëpp woo xaritam Cheikh Bakke Laay bàyyiwuñu kenn di woo grand Serigne Ablaye Matar Diop Ndeye Mariam Badiane président Benno Bokk Yaakaar woo nañ la yaa sa njaboot képp koo xam ne socialiste nga wala ngay sympathisant di woo sunu doom yi Khourédia Fall ñu ngi woo su Khourédia ak xale yëpp ñu ñëw ci bés bi bés bi daal mu ngi noonu liñ ciy waxtaane mooy civisme ku koy waxtaane di alaaji Tamsir Sakho ku ci bëgg xam dara na nga ñëw ci bés bi ñu waxtaanee ko ci lislaam ndax lislaam li mu ëmb dafa bare civil na ngi ci biir kon bés bi daal mu ngi noonu ñu ngi leen di gërëm di leen sant di wax ne Mansour mbay moo ñu doon defal avant première dafa tukki ñu woo suñu xarit suñu soppe nit ku baax kuy ñaw yore pusoom di Samba Camara ñu ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf euh, mbokk yi gis ngeen woote yooyu ñu ngi ci soññe bu baax a baax am na ci boo xam ni Jamil yaakaar naa ni Youssou Baro di caméraman fii ci kër gi mooy mi ngi ciy soññe ndax ay waajuram la euh, kon ñu ngi ciy soññe bu baax yaakaar naa ni mooy jigéenu xalifi sii ñu ngi ciy soññewaat bu baax a baax di leen fàttali itam incha allah layatul xadri euh, soxna mooy mënatu ni ko doon waxe waaw moom la moo Jamil doon wanaat léegi noonu mi ngi noonu kon Youssou Euh, naka na la gaa yëpp jàppale fonk bés boobu bu baax a baax euh, laytu xadri euh, soxna may am ci jagle tàmbale woon ko ci ñaari ganaar yu mu defaloon reer Cheikh Mohamad Fadal ba tey jii njabootu sëñ Basirou Sarr rek naka waa sëñ Basirou daan defee gën gaa néew daan ko yóot ñaari junne ganaar ñu ngi fàttaliku ku baax soxna Baali mi nga xam ni yóbbu na ko ci beneen dimension tey jii nag sëñ Modou Mahfous mi ngi fi moom it taxaw ci taxawaay bu ràññeeku waaye jigéenam bi nga xam ni moom moo ko ci daan jàppale su borom dogal na mu jiitu ji keroog ci bésu màggal gi njabootam nag ñi ngi fi eh, soxna Astou mi ngi fi Cheikh Abdou ngi fi ak seeni rakk kon nag mbokk yi niñ ci daan taxawee jàpp nañ ci dënk dañ ciy gën a taxaw ndax lislaam moom ni ko sëñ Aboubacrine Faye waxe léegi rek kanam la jëm liñ doon wax léegi ci concours bi naan ñu ngi jógee cent million dem deux cent millions naan un milliard lañ jëm. liggéeyu liggéeyu diine yëpp noonu la war a demee te sëñ Tuubaa da daan wax naan amul tànki gannaaw tànki kanam rek la am. kon ñu waajal ko bu baax a baax. sëñ Ablaye Diop Bichri suñu xarit di suñu wëlëre moom démb xam ngeen dëj bi am tubaab moo doonoon suñu ngànt moo tax démb ñu nekk tubaab ba guddee nañ fa jóge lool ndax euh, waajuru sëñ Abdou Karim ak soxna May Galas di soxna maam Awa Faye moom moo jiitu ji moom it euh, ba tey jii sax la ñaan gi. waaw euh, tey ji la ñaan gi kon euh, bis yi euh, looloo nu tere teew démb ci tudd bi waaye bég nañ lool ci tudd bi ndax maam Cheikh ma Fall Lamp Baabul Mouridine bi nga xam ne moom nga tudde gan gi yàlla na dund te ñu fekk njëriñam bu baax a baax kon imam ñu dellu siwaat ci concours bi alhamdulilah ñëw nag léegi ci soññe bi ndax nit ñi buñ déggee grand théâtre mhm. dañuy jàpp ni ci saalu grand théâtre la ñuy daje waaye ñaari at yi xam nañ ni concours bi xajatul ci saalu Grand Théâtre ndax saalu Grand Théâtre mënul jël lu ëpp ñaari junne nit te concours bi seetlu nañu daaw ñi fa ñëw ñi ñëw Grand Théâtre daaw ñi dugg ak ñi wàññeeku gën gaa néew xaymakat yi wax na ni man na fukki junne moo tax leen ñu ni dañuy jël. saal xayma boo xam ni saal bi dana ci bokk. saal bi la ñuy jël. waaw ba pare def bâche boo xam ni. dana mat gën gaa néew six mille cinq cent personnes daan fa xaj. alhamdulilah muy juróom benn junne. ak juróomi téeméer léegi buñ ko booleek ñaari junne yi nekk ci salle bi ak yeneen loq-loqaan yi fay am ca Grand Théâtre jàpp nañ ni fukki junni fukki junni bu ñëwee itam daanu mën a topp lii nga xam ni moom mooy concours bi loolu nag mbooloo mu mel noonu fu ñuy daje mhm. dana baax nag ñu waxtaan ak ñoom ni ñu ñëwee ak neen fay nekkee mel na ne am na mbokk mu nekk ci téléphone bi balaa may jox imam ñu wuyu ko ba noppi asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw waaleykum salaam wa rahmatulah sëñ bi Samba ku Moustapha Jaxate ku ñoo la woon nag bu njëkk. Eh, sëñ Moustapha Jaxate waaw ku baax waaye ku baax. léegi nag Touba Mbacke la. tuubaa Mbacke est-ce que yaa ngi Touba. waaw waaw maa ngi Touba ñi ngi sant bu baax nag ci émission bi pour bañ a guddal. jërëjëf sëñ Moussa. di nuyu oustaz moomu di nuyu mbooleem ñi ngeen àndal liggéey boobu. jërëjëf jëf waaye ñi leen di wax ne alxuraan mooy bëgg a jël lim moom. dëgg la est que. alxuraan lim moom day jot mu jël ko ndax réew mi réewum jullit la. wallaahi wallaahi te lépp lu nit di déglu di kontaan wala mu cay def dara di kontaan alxuraan moo ci jiitu. wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi. ñu xamee li ci alxuraan dañuy xam ni gubu pepp la foo ji mu sax. Mm-hmm. gis nga li ngeen di def nii da ngeen di àggale rek waaye yàlla programme na lu ëpp loolu. dëgg la jaxate. bu ko defee ñu ciy profité di jaajëfal mbooleem koo xam ne rek mi ngi jàpp ci lii ngeen di def. Mm-hmm. ba mën a yëkkati kàddu alxuraan comme ni ko suñ Cheikh Mbacke waxoon kalimatullah yal ulya bërki démb rek sëñ Muntaxa kay waxaat wallaay yàlla na leen yàlla fay ci loolu jërëjëf jaxate amiin bu ko defee sëñ daara yi nga xam ne ñi ngi ci di yëngatu tam di nab nab bi bàyyi seen itte def ko itte hmm. wuutuñu ñun ci suñu njaboot mënuñu leen a fay yàlla rek moo leen mën a fay waaye li ñu leen mën a fay tam mooy saa buñ gestoo ñu gis dëgg la dëgg la ndax alxuraan dafa am loo xam ne ci dayo dayo ci dayoob réew mi fi mu toll nii alxuraan a moo jagal mm-hmm. jërëjëf mm-hmm. ñu ciy jaajëfal mbooleem ñoo ñi ngeen àndal ñoom Ablaye Dia ñoom Salim ñoom ñoom ñoom Serigne Boub ñoom ñëpp ñi nga xam ne alxuraan daf leen ñor ndax ñun ci daara ji lañ juddoo te ci lañ nekk dëgg la ñu jàngale tam war nañuy nekk dëgg la dëgg la jaxate sëñ bi loolu laa naa ko barkeeloo da ngeen a xat am na solo nga nekkee bitim réew it ci loolu nga nekkoon ku la gis xam ni ci daara nga ah. jaar te ba fàtte woo ko waaw barkal jërëjëf sëñ Moussa ñi ngi nuyu waa Touba yëpp imam dégg nga li ñu bëggoon sëñ Moussa yi alhamdulilah jërëjëf yàlla yàlla fay ko ci kàddoom yu rafet amiin amiin amiin waaye itam loolu itam ab soññ la mm-hmm, mm-hmm. ci mboolem sëriñ daara yi mm-hmm. xam ne dañoo am lu kenn amul kenn ku ne la nga yor am na fu mu yem waaye alquran moom amul fu mu daa boole àdduna ak àllaaxira dëgg la dëgg la kon loolu rek doy na teraanga ñu ne la yaa ngi ci loo xam ne daa hmm. boole àdduna ak àllaaxira amul fu mu yem ba pëncim yàlla di taxaw ëllëg amul fu mu yem sallallahu alayhi nit ñi gën ci nit ñi mooy ñi jàng alxuraan di ko jàngale te looloo dégg hmm. loolooy dégg hmm. àdduna bi yëpp ñi ci gën mais jullit ñi ñi ci gën da wax ji dëgg la bi sifatin amma wa bi sifatin xaasa mhm. mooy ñii la yonent bi joxoñ mhm. te lu mu wax yàlla nee na maa ko wax ci lu wér wallaahi kon loolooy li wér su ko defee bu ñu dellu si waatee ci woote bi ñu woote ndax xas mhm. nañoo woote te boo wootee ñëppay ñëw ñëppay ñëw waaye li ñuy jëkkee rek mooy ñu doon li ñuy wuyoo ci koor gi doon ay jullit doon ay jullit aqan ndax jullit moom surtout ku woor boo delluwaatee ci li nga def dina la dimbale bi boo xëyee ba ba jant so da ngay jàmbure doo lor kenn doo tooñ kenn doo sikkal kenn mhm. lu tax lan mooy koor mhm. koor mooy bàyyi lekk ak naan mhm. ak mbooleem luy xajamal koor ci wax ak ci jëf ci bi fajar fenke ba jant so ci yéene jaamu yàlla ci loolu ngay def ma ne loolu mun nañ koo dégg mhm. mais li ci leneen mhm. te mooy bàyyi loo mii noon mhm. loo xam ne yaa ko moom te mu lew la dagan ci yow nga bàyyi ko maxaafatan lillah wa mahabbatan la nga bàyyi ko ngir yàlla ngir ragal boo ragal yàlla ak bëgg boo bëgg yàlla loo ragal ci àdduna dangay daw ngir moytu loram yàlla nag da nga koy ragal ba pare bëgg ko. Mhm. di daw di delluwaat ci moom ndax amoo foo jëm. jërëjëf euh, imaam téyel foofu ñu jël daal téléphone bi salaamaaleykum mbokk mi. asalaamaaleykum rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. imaam ñoo ngi leen di ziar. alhamdulilah alhamdulilah di leen baalu ak te di leen balaax. baal nañ la baal na yow yàlla boole. di leen ñaanal gudd fan ak wër gi yaram. amiin nañ ko yàlla boole fi yàgg lool te wér. amiin amiin ndax sunu réew mi daa toll foo xamante ne. Mhm. yéen de yéen a war a mën a jàpp ndax lépp sauvé. alhamdulilah jërëjëf. muy li ngeen di def nii ñu nga xaman ñooy ndaw ñi ñu si taataan. Mhm, mhm. ndax dañ ne ku yaroo si daara ak. daa ak xalima ak daa ak daara hmm. kooku foo ko fekk rek da lay wax lu nga xamante ne ci dal la lu la yóbbu suñu borom la ñu gën a dooleel sëriñu daara yi hmm. jox leen seen wàccuwaay respecté leen te teg leen seen place hmm. alhamdulilah ndax tey foo dem si monde bi tey jii nga xewle dëj wala nga xewle wàcce kaamil wala nga xew ku ku nga xam ne daa eh, gane si àdduna. Mhm. sa sa sa sa waa bureau de mën nañu ñëw. saxee. say dëkkandoo it mën nañu ñëw mais dañ naan xaar leen imam ba. Mhm. ca wax nga dëgg. te imam baa nga génne sa daara ji. waaw nga dëgg. te tey jii ku si am sa njaboot te ngay jullit yaa ngi bugg si moom alxuraan bu tegu yaa jël di ko yóbbu si sëriñu daara ba. macha allah laajuloo si lu dul. xale bi dañoo heure muy jël xam-xam bi di ko jox. Hmm. kon ñoom yàlla nañ fi yàgg lool te wér. amiin amiin maa ngi nuyu sëriñ daara yëpp particulièrement waa Kees. jërëjëf en tout cas de Idrissa Gueye mu nekk Kees. jàmbaar lañu. ak Mouslim Souleymane Sy. waaw. ah mais këru daara yi nekk si biir kees fii ñoo ngi fi def liggéey bu bu bu bu suñu borom soxla. bu suñu borom jàmbaar lan lool sax jàmbaar lan lool suñuy digg sa gay. daara yi ah ñoo ngi leen di de yàlla si leen yàlla bàyyi bu baax a baax. amiin amiin ndax tey jii ñun loolu rek lañu soxla si suñu réew mi. kon maa ngi nuyu ñëpp di sargal ñëpp di nuyu. waxaan waxaan na wi. waaw man maa ngi tudd Boubacar Diarra. Boubacar Diarra. waaw dëkk fii si kees. waaw ah yow de kees gi kees gi nga nekk moo ma jaaxal ndax mbokk mi woote woon Touba léegi sax bëggoon naa ko jox ndoguli waaye kees gi de moom. <laughs> waaw xaw a sore waaw. waaye nag euh, sant baax na bon bu keneen dugaatee rek ñu jox ko ndogu ndoguli mu mel ne yéen yéen it woon nañ leen ko. alhamdulilah ngoon ñoo ngi wër ci daara yi. di di leen saytu. di leen jàppale ngir ëllëg. jërëjëf waaw <coughs> jërëjëf. Euh, kon euh, ma ne kon waaw imaam yeggaleel waaw ndax li ñu des sa bareetul waaw. wax nga dëgg. Mm-hmm. bàyyi lu la lew te dagan la. Mm-hmm. ndax léeg-léeg nga bàyyi wala nga bàyyi dara te fekk da nga koo amul. Mm-hmm. mais lii da nga koo am. moom ko mu lew la. nga bàyyi ko ngir yàlla. kooku jaratu ñu la wax bàyyi langam. dëgg la loo xam ne safaan la. am na ñoo xam ne ñuy faral di ñëw ci xew yu mel noonu. dëmb rek a ci mujj ci grand théâtre am ñoo xam ne buñ ñëwee dañuy làmb posu nit ñi di jëli seen portable kuwoor du def loolu li ñuy wax naan ku du jël loo moom ñi gàmmoo ñi raas dem wallaay hmm. Pape Joxane ko doon wax ma ne kon dañuy woote ci alquran hmm. ngir bëgg nit ñi jëriñu loo xam ne njëriñ loo xam ne hmm. da leen di topp ba seen giiru dund ñu am ci teraanga àdduna ak àllaaxira ñëwuñu pour dooleel alquran mais dañuy ñëw pour doole woo ci alquran dañoo ñëw pour teddee ci alquran ndax alquran tedd na ba pare borom ma ko tuddee quranul karim wallaahi wallaahi kon ku bëgg a tedd da ngay dem ci alquran mm-hmm. benn wax waxkat dafa wax ne seen njiili mm-hmm. man arada dunia fa alayhi bil mm-hmm. képp ku bëgg àdduna utal xam-xam te loolu feeñ na tey jamonoy xam-xam lañ ne ku amul xam-xam bokkoo ku bëgg a àllaaxira utal xam-xam àllaaxira itam pour nga jëriñu fa foog nga am xam-xam ku bëgg àdduna bëgg àllaaxira boole leen utal xam-xam mhm. mu ne nag boo bëggee xam-xam fa alayhi bil quraan ñëwal ci alquran mooy ndeyu xam-xam alquran kon mu ngi noonu ci lañ leen di woo ci la ñuy woo ñëpp mhm. ci mol ci la Sénico di woote mhm. ci la waa fédération bi di woote fédération bi ak Sénico ñoo lënkaloo jàppaloo ngir bés bu màgg boobu. Mhm. te mooy grand théâtre le 19 bii di ñëw. Mhm. ndax ku nekk am na am na loo ci mën. am na loo ci mën ku am na loo ci ñii ci wàllu technique. ñii ci wàllu mhm. finance. yàlla boole leen. ba amul xàjj ak seen. déedéet wallaahi yàlla dogal ñu déggoo ci façon boo xam ne yàlla dimbale na leen ñu ñaan yàlla loolu yàlla. saxal ko waaw te waa seen ko itam di waa Daara di doomu Daara Daara si looloo tax ñu mën a ñu mën a nekk moo tax ñu mën a ànd. mën a loolu man daa Jamil daa mbokk mu dugg. waaw asalaamaaleykum. waaw waaleykum salaam wa rahmatullah. ak fooy wootee mbokk mi. maa ngi tudd Mbacke Ndiaye dëkk Ndiaye Coro. Ndiaye Coro moom fu mu nekk. Ndiaye Coro ngi ci wetu diggante Ndanda Kébémer Babacar Seye boobu xam na ma bu baax. Ndanda Kébémer sëñ bi Oustaz nee a xam na ko bu baax. jërëjëf Mbacke sëñ Mbacke diggante Ngaye ak ak Ndand diggante Ngaye ak Ndand. Oustaz Oustaz kon waxal ak moom. balaa ñuy tàggoo waaw. waaw kay waaw kay. bisimilah alhamdulilah sëñ Mbacke. ñu ngi lay nuyu bu baax. di ah, la ziare ñu ngi lay delloo nuyoo ñu ngi leen di ziare bu baax a baax di kontaan lool ci yéen. alhamdulilah yàlla yàlla kontaan gis naa démb gis naa démb grand théâtre. grand théâtre wax nga dëgg. Mm-hmm. waaw maa ngi lay gis maa ngi lay nuyu. alhamdulilah ñu ngi lay delloo nuyoo. ñu ngi lay ziare bu baax a baax a baax. ñu ngi lay delloo ziare di ñaan yàlla mu nangul di kontaan di kontaan lool ci taxawaay yi. alhamdulilah jërëjëf. ñun daara rek mooy li nga xam ne moo ñuy dundal moo ñu ñor. alhamdulilah. bu ñu sañoon fépp fu nit daara nekk luy terange ci àddina koo koo dendal yaa ko ci ëppale yal yàlla doora dellu teraange ji bu baax doolu seen ngir bu baax wax naa fan yee bu yàggul tey euh, ma siyaare sëñ Abdou Aziz Touré ma ni ko tabaarakallaahu su sëriñ Adi Touré yow woon niin li mu ci buntu kër gi doo doo defaru ni nga toogee woon doo ko defaraat tabaarakallaahu li mu yow xam nga dara ci ci ci li ma bëgg a wax. wax nga dëgg yal yàlla yokk ko. kontaan nañu bu baax a baax ñoo ngi ñaan itam incha allah ni ñu teewee grand théâtre bu buñ ko yàlla may ñu jéem a teew si foofu. incha allah incha allah yàlla ko yàlla ñoo ngi leen di ñaanal bu baax di kontaan ci seen eh, taxawaay lool lool lool di ñaan itam nag yàlla dolli leen a dëgëral. Eh, mbokk mi duggoon sànq ni dafa mel ni alxuraan ànd ngi eh, bëgg a jël lim moom. Ah. alxuraan mosu. waaw ah, Moussa Diakhaté waaw. day gën a dëgër day gën a dëgër. incha allah day gën a dëgër. Euh, damay wax ni ñi nga xamante ni nii ci ay saaxaan la ñuy dox taxe nañu ba lënkaloo bëggante di dimbalante kon ñuy hmm. dox ci dëgg nañu lënkal lëkkaloo. loolu am na ñoom la gën a waree te bëggante te dimbalante. incha allah waaw ñu nekk ci dëgg. Hmm. nañu lënkal. ak fu waay mën a ne tariixa ci association. wallaay fu mën a nekk nga nekk te nekk ci dëgg di. Hmm. di liggéeyal l'islam. fu waay fu keneen ka nekk yow la fa nekkal foo nekk. moom nga nekkal. nañu góor góor lu fexe ba bëggante di di lënkaloo di yëkkandeedoo di tegandoo di dóorandoo. incha allah jërëjëf loolu daal ñoo ngi koy ñaan yal na yàlla doolu jàmm. waaw waaw mais waaw bul coupé. waajuru waajuru ndongo la. bu bul coupé waaw ñu ñu jël la bu ko defee jox la pañe bi pañe bi nag dana toll ci juróomi junne. kon mbokk yi bu mu coupé Jamil ngeen jox ko pañe bi moom mu fexe comme que jomb la incha allah dana ñëw dimanche. ci concours bi buy ñëw bu mën fi jaadaale jëlaale ko incha allah. macha allah oustaz léegi yan kàddu. ma maanaam <coughs> kàddu soññe nag. yi ñuy tëjee ndax waxtu yu jot na waaw. ànd ak dal tey déglu ñi yore yëf yi. Mhm. surtout ci policiers yi. Mhm. ñi nga xam ne dañoo civilu ak ñi nga xam ne dañoo sol ay tenue mhm. ñu war cee mën a bàyyi xel. te te police li mu nar leen. ñi ah. solul tenue ñooy ëpp. ñoo gën a ah, ku ku jàpp ni mën nga ñàkk gis ku sol tenue nga ni naa naa naa dagg ah. poosu Aboubacar eh, Faye wala naa jël téléphone am fekk na. ëpp naa ka dend ak moom faf policier la. dañuy ñaan ñëpp daal ñëw ci jàmm léegi laa fa jógee police léegi la ñoo fa nekk mm. na ñëpp ñëw ci jàmm. amiin amiin mën ci sunu mbokk jigéen ñi xam ne waajal nañ leen. wallaahi wallaahi te Grand Théâtre liggéey nañu ay toilettes yu yoo léegi lañ ko doon visité bés bi moo koy inauguré. alhamdulilah loolu la ñu wax léegi ni nu lii de. alhamdulilah am na wàllu góor am na wàllu jigéen te macha allah te daan fa def nit ñoo xam ni itam ku dugg ci toilette bi boo génnee day mel na kenn mos see dugg. incha allah yooyu yëpp waajal nañ ko. alhamdulilah seen ji li daal na ñëpp ñëw. <coughs> rawatina sama mbokk séeréer yi. waaw séeréer nag moom waa jonoar yi waa jonoar yi. donte yéenay yéenay suñuy euh, jaar. foog séeréer non <laughs> non kaaga waage jeg <laughs> incha allah surtout jonoar adnan o hoytole lisa dramé fa ousmane ami ndong assane amina sar maymuna ndiade lanamay janke dena fof ene goyaden fi joni fop goor fi rew mak fa a teb den madiɗi ñaali mak nen annanga ten waɗuje dimanche fane injo fa le 19 ine goya fop to giɗana fop roha yoɓan piden dah kete ñaaɓiɗa o tere fo yaale subhanahu wa ne ndun nantuna imberan ne o yaaloyo leye nune gimna o yaale he nungo yange no, no yaale fe no tuler mouhammad sallllahu alayhi wa sallam jaabiidi mm-hmm. ke ano nanga ten na ñowana nuun alquran ten wahu ñowna nuun alquran ten na ñowana o kiin ten na ñowna to ten kon ñaalna ha in we ngoyaad bo o lenga bo o lulit fo kiino kiina a hohum kon in ngoya fop mm-hmm. lisa dramé ousmane amina ndong assane amina sarr maymouna njaay ɗe lanama e janke fijon wara fof wonno heure uma wonno uma amba haɓɓisa den hmm. kono ine goya nun yasamro haɓisida nun na jaam hmm. nu mbaɗid na jaam imma hewola na jaam tepax na jaam nu ndako na jaam yasamro afi ken diili kenn kenn loolu mooy li nga xam ne moom mooy li am kon ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen sant yal na yàlla fay leen yal na yàlla kàttanal leen yal na yàlla gën a dëgëral seen taxawaay gën a soqali kër gi ba li ngeen ci yéene ak li ci borom yéene ci lu baax lépp yàlla jàppale ko ci biir weeru koor gi ci nekk mm. nga xam ne li ci yàlla digg ci yiw ak def lu baax lépp yal na ko yàlla def wesaare ko ci réew mi jàmm ji am ci réew mi yàlla saxal ko te dooleel ko yàlla sàmmal ñu suñuy kilifa mm. kàttanal leen wasalaamaaleykum rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah jërëjëf imaam Aboubacrine Faye di sunu soppe di jàmbaar yor daara fii xam ngeen ni ñuy def émission nemmeeku daara yi bokk na ci daara yi ñu génne woon bokk yi ci gën a ràññeeku waaye terewul. fépp foo xam ne l'islam a nga fay yëngal dara rek mi ngi ci taxaw ba bokk ci comité directeur u euh, concours Sénico bi nii noonu la bokkee itam ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu communication euh, délégation a la délégation au pèlerinage euh, sëñ Abdou Aziz Kébé nekk ci boobu moom mii mu bokk ci ñi ànd ak sëñ Abdou Aziz Maam Fall mi nekk ci kër gi surtout sunu mbokk yi nga xam ne ay séeréer la nag yooyu di ci jàppale bu baax a baax sunu mbokk soxna yi man sama soññ ci ñoom lay gën a jëm gis nga nday daara yi nday daara yi taxaw nan taxawaay boo xam ni ñi ngi ciy seenu gën gaa néew juróomi téeméer yoo xam ne ci région yi la ñuy jóge ñoo xam ne dañuy financé ci région yi la ñuy jóge bokk lak ñi nekk ci biir Dakar waaw ci ñi nga xam ñi nga xam ne ñoom ñoom sëñ Aboubacry ñi ak ñoom président Kéba Faye ñoo leen di soññ ak yooyu ak ñoom Moustapha Moustapha Moustapha Moustapha Gaye ak ñoom sëñ Adama Seck lii moom ñiy jóge rek ba Casamance nag te li ci gën a yéeme ren ji imam nday daara yi ñu ci bare dan ni lépp ñoo koy defal seen bopp bu leen defal dara loolu ndax seen waaw ndax seen bëgg alxuraan dañ daan toppatoo sax ay cadre di leen ko jàppale waaye dañ dañ ni lépp ñoo koy defal seen bopp muy lu am solo te ñooñu dañuy teel a ñëw kon jigéen ñi ku ci bëgg place da ngay teel a ñëw ngir nga mën a am place bu baax ndax xam ngeen ne juróomi téeméer ci ñuy jóge ci gox bi rek biir yow mi rek lu bokk la biir Dakar loolu rek mbooloo mu dul jeex lay doon kon ñu ngi leen ciy soññ te bu ñëwee itam ñi nuy ñi ku ku ko mën booy ñëw na nga indaale sa carte carte yi nga xam ne moom la ñuy joxe am na carte bu mboq am na fu mu jëm am na carte bu verte am na fu mu jëm am na carte bu ñuul am na fu mu jëm. alhamdulilah ñi ci bunt yi daan leen gàttandu orienté leen. ànd ak alkaati yi. fu fi alkaati nekk ci bunt rek dana am ku mel ne sëñ Aboubacar fay mii wala ko xam ne nit ñi koo xam dana fa taxaw ba mën a orienté nit ñi bu baax a baax nan ko fonk bu baax a baax. kon loolu ñu ngi ciy soññe bu baax balaa ñu tàggoo nag ñu fàttaliwaat bés bi nga xam ne itam mi ngi am ci mbaaru Daaru Xuddoos di. kuréelu nasru wa rahma di suñu mbokk suñu ay jigéen yoo xam ne ñu ngi am taxawaay bu ràññeeku ci Touba ak Mbacke ak li ko wër ngir gën a boole seen bopp waaye di dimbaleen dimbalante seen biir di def ay ay ay ay ay liggéey yu sew sewaan ji ko jàppalante seen biir seen première conférence incha allah le 12 lay doon ci. Euh, liwaaw xamdi muy euh, màggalu daaru xuddoos euh, xaw ma mbaaru daaru xuddoos ñu ngi leen koy euh, fàttali bu baax a baax di fàttaliwaat itam bu baax soppee maam Cheikh Anta yi seen bés boobu di ci ziar bu baax soxna muuminatu bintu Cheikh Abdoul Khadir Mbacke mi nga xam ni mooy seen présidente d'honneur soppe maam Cheikh Anta yooyu fàttali itam bésu sëñ Modou Habib bi incha allah le 18 lay doon bésu 19 yi moom du ma ci fàttaliwaat benn ndax li nga xam ni moom la sama jëw lañ wax léegi kon ñi nga xam ne ñi ngi ñuy seetaan te demaguñu woon ci conférence de presse bi fa lañ jëm nii. Euh, institut islamique. buñ ca jógee itam gan googu nga xam ne moo jógee Arabie Saoudite bokk ci di président jury international bi war a ñëw moom it am ay leeral yu mu def moom it ñëw ngir concours bi moom it dana am waxtaan wu mu fa def incha allah bu ko defee ñun ñi bokk ci comité d'organisation bi yëpp itam ñu xam ne leen rek neen fi ñu toll nii fii ba dibéer bés bu nekk daje bés bu nekk waxtaan la waaye suba ku ko mën nan xam ne suba la concours bi tàmbali ci institut seen njàngum alxuraan mu neex. leen di tànnee seen mokkal ak ni leen di tànnee. suba la incha allah muy talaata àllarba alxamis. ñetti fan yooyu mooy concours bi bésu grand théâtre bi moom bésu cérémonie bi la sagal xale yi sargal leen neexal leen moom lay doon wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu zidna yaa fataax kulla yawmin sahaadatan wa biya bashir xawmi imaam. alhamdulilah ñaanal waaw jërëjëf. rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika nabiyyika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. subhanaka allahumma wa bihamdik. ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. amiin amiin jërëjëf jazakumullah. jërëjëf jërëjëf. waa Touba ngi waaj bu baax sëñ Modou Mbacke si mi ngi ko waajal bu baax a baax a baax ak waa Touba yëpp ngir ñëw ci bés bi jërë ngeen ah, jëf.